par rapport ak ñoom fi ñu fi ñu nekk nii. Hmm? li ñu li ñu tàmbali maanaam euh, fexe ba jubal. segg xool li dëng les mauvaises pratiques les vilaines pratiques ñu teg ko de côté euh, ça permet de rationaliser les effectifs. mais aussi hmm. les les les dépenses. foofu aussi ñu bëri ñu ngi ñu ngi saluer xam nga xam nga euh, nit ñi seen santi mooy li ngay def ñu koy gis. Hmm. xam nga li ma la wax. tey boo ñëwee nga ne j'ai réformé j'ai économisé j'ai économisé tey man nga réformer l'administration par exemple nga ne j'ai économisé par exemple disons cent milliards mais cent milliards foofu fan lay fan lay dugg n'oublie pas que tu as un déficit que pour faire face à la crise de l'Ukraine mais qu'est-ce que le président a dû faire le président Macky a augmenté ses salaires hmm. tey agent collectivité territoriale ba léegi loolu la ñuy grève ne dañ ci war a dañ ci war a bokk il a multiplié les subventions subventions sur l'énergie subventions sur les denrées euh, euh, alimentaires pour ñu mën a dékku la crise qu'on vit mm -hmm. mais qu'est-ce que le FMI nous dit le nous dit que ça ne peut pas continuer puisque c'est et quelques milliards que vous mettez dans des subventions quatre cent milliards c'est le prix de Ila Touba mm -hmm. nous demande d'enlever ça est-ce que les Sénégalais peuvent supporter ça donc toi économiser tu créer des marges mais c'est pour combler ce déficit là ouais. donc est-ce que les moo tax c'est très important d'avoir beaucoup de pédagogie moo tax le discours ambiant de menaces de trucs il faut tempérer ça être dans l'humilité et essayer de faire le maximum de Sénégal. mais surtout Aba euh, surtout euh, li nga wax justement dafa am solo dans la mesure où tey jii nii euh, ñoom dans leur euh, esprit li ñu bëgg mooy bien faire fexe ba yan parti gi jóge fii mm. à l'ONAS par exemple y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés mm. euh, ñi ngi tàccu mais c'est des chefs de famille qu'on envoie au chômage yenn services yi directeurs généraux yi aussi ñi def la même chose RTS yaa ngi joxe cas bi mm. maanaam euh, mën na baax ni nit ñi tàccu mais une famille au Sénégal un père de famille on sait tous ñaata ñun ñoo nekk ginnaawam loolu au bout du compte avec un peu de temps mën na indi problème boo xam ne dafay këppuwaat seen kaw le secteur privé ñaari exemple la ci nga sànq le transport ak El Malick Ndiaye ce qu'il a fait on a applaudi mais transporteur il n'était pas content tout à euh, aussi benn benn point la ci maanaam avec leur réforme mais nee nañu mënoo def lu baax sànq nga merloo nit ñi fi ma bëgg ñëw ak yow mooy est ce que tey jii nii boo doon peser sur la balance euh, ndax fi ñuy demee ni ñuy doxalee jar na ko pour que nit ñi metti lu tuuti après ñu mu neex. wala mën na këpp seen kaw dans un court wala moyen terme. non en fait ñaareelu leen mu mu këpp seen kaw. moo tax may insister sur la pédagogie sur la communication sur le discours c'est très très important. ñoom mooy ñu doon rendre compte qu'au Euh, le PM l'a dit même. mais ça c'est des erreurs de communication pour moi qui doivent être corrigées parce que Sénégal dafa c'est c'est un pays assez complexe moo tax ma ne la mënuñu leen souhaiter ñu tomb ñu am erreur. Mm-hmm. parce que dëkk la bu nga xam environ combien fonctionnaires tu Sénégalais qui travaillent dans le privé. Mm-hmm. et le reste ils font comment. dañuy débrouiller wu vous devez faire des choix qui rééquilibrent l'économie mais autant les faire pour le bénéfice de tout le monde parce que ce qui ñu wax FMI dafa ne par exemple jox ñu mu ne par exemple si on fait passer cinq mille francs à cinq mille francs par trimestre comme on le fait sur le même nombre de personnes c'est-à-dire environ trois le sur le sur le carburant et sur sur sur, sur, sur l'électricité c'est environ quatre cent milliards enlevez les subventions et fléchez vos efforts sur les bourses de sur les filets sociaux mais à condition que ngeen changer de registre unique bi registre national unique bi parce qu'ils ont compris que registre national unique bi c'est à peu près les militants de de de l'APR moo tax bi ñu indee ministre des solidarités bi j'avais envie d'applaudir mais fi ñu ko teg parce que moi je pensais que ce ministère des solidarités là dafa waroon ñëw au niveau de la santé pour que branche sociale santé boobu retrouver sa vie mhm. parce que le président Macky Sall avait créé un ministère développement communautaire dugal fa ay projet CMU Promoville lan la Promoville def di def di def développement communautaire alors que y a un ministère de la lan la CMU di de développement communautaire alors a un la santé lan la bourse solidarité familiale di def dans un autre ministère mhm. alors que on a un ministère de la santé et l'action sociale bu nga xamante ne dafay former même des travailleurs sociaux avec une am ay CPRS am ay direction de l'action sociale moo tax quand j'ai vu ce ministère là revenir avec un ministère de la famille et de la solidarité j'ai fait attention mmh. donc la priorité c'est avec le peu de moyens qu'on a parce qu'on mm-hmm. a une dette qui est à 76 pour cent on a on a un déficit qui à un moment a avoisiné les les on a une inflation qu'on essaie de maîtriser heureusement wàcc na mais vers fin 2022 on était à 14 pour cent à un moment c'est comment aider le maximum de Sénégalais comment faire en sorte que le maximum de Sénégalais puissent bénéficier des moyens de l'État mm-hmm. mais c'est un discours aussi qui va en l'envers parce que comment faire pour que le maximum de Sénégalais contribue à l'effort de l'État mooy indiwaat la question de la fiscalité. moo tax le débat sur la fiscalité. il compte beaucoup sur la fiscalité ah. moo tax muy le PM muy le président mais les entreprises de presse cinq entreprises. man damay fayeeku salaire di fay impôt sur le revenu. Mm-hmm. mais si sama salaire am na trois salaires damay fay sama chauffeur mhm. damay fay ñaari bon sama biir kër mais tey j'aurais eu envie man de défiscaliser maanaam état bi ñëw ne ma ah yow de sa salaire boobu comme yaa ngi ciy fay ay salaire mhm. bu fekkoon da leen di déclarer wala dañ leen déclarer daal na mën a wàññi sa ay impôts parce que plus le secteur informel va entrer dans le formel recette état bi dafay yokk mhm. mais loolu compromis la li mën a tax sama dëkkandoo bi luwee benn boutiquier xëy na étranger wala dara mën ko pousser mu déclaré wu compromis la li mën tax sama dëkkandoo luwee benn benn benn coiffeur boole ko ak foncier bâtiwoom mais lu muy war a déclaré moo tax le débat sur la fiscalité est un débat très très large bu nga xamante ne on doit le poser il y une stratégie de de de de de de à moyen terme bu ministère de finances développé on veut monter la pression fiscale jusqu'à vingt pour cent mais la marge de manœuvre où sont nos niches fiscales mhm. c'est ça la grande c'est par exemple budget bële ils nous avaient dit que dañuy augmenter la fiscalité sur le tabac et sur l'alcool c'est les accises c'est un classique mais ils avaient dit aussi que dañuy yokk la fiscalité sur le commerce électronique de plus en plus des gens achètent par internet mhm. est-ce que ça a donné résultat comment faire pour que le maximum de gens déclarent leur activité et que ñuy fay contribution globale et unique wala pour que ñu fexe ba le monde se dise que on va parce que on a vu les résultats. mais le fait qu'ils soient des inspecteurs des impôts mu nekk seen liggéey aussi dafay dafay plaider en leur faveur dans mesure où xam nañ ko bu baax muy le président muy le PM muy le ministre des finances. muy le DG du port ne suffit pas ne suffit pas. dafa am benn kilifa bu ma waxoon dafa attention le les inspecteurs des impôts c'est les gens de l'ENA qui ont le moins de contact avec l'exécutif parce que mën nañ liggéey seen ak exécutif c'est pas le cas d'un préfet ou d'un gouverneur qui peut voir mm -hmm. le mhm. président yooyu c'est pas le cas d'un diplomate qui peut recevoir le président non c'est euh, euh, je pense que la question de la fiscalité l'impôt est au cœur du pacte républicain de la nation ku jàng histoire impôt sax xam ne loolu la mhm. l'impôt ne peut pas diviser les citoyens au contraire si tout le monde est d'accord sur ce qu'on doit payer sur comment on doit le payer et pourquoi on doit le l'impôt va de pair avec des réalisations concrètes parce que c'est là où les gens vont dire man maa ngi fay impôt mais maa ngi sama dëkk mu ngi dem moo tax la question de la démocratie mmh. la question des libertés la question des évolutions institutionnelles tout ça va de pair pour créer benn cercle vertueux bu nga xamante ne ça va aider le Sénégal à aller de l'avant la question de la fiscalité ne pas se à un discours stigmatisant ou à la question malgré le pétrole malgré nos efforts à chaque fois qu'on aura un choc mais on aura plus de recettes pour pour pour couvrir nos dépenses payer nos emprunts et ainsi de suite ainsi de suite. mais ils arrivent à la tête du pays à un boo xam ne euh, les clignotants sont au vert bu koy tuddee noonu recettes pétrolières yi ñu ngi koy ñu ngi koy xaar euh, premier baril bi génnee nañ ko. Euh, maanaam ay mbir la yoo xam ne aussi avec un peu de volonté ak une bonne gestion. Sénégal na mën na jëm kanam. dans les c'est assez mitigé en fait c'est assez mitigé parce que comme ni ma la ko waxee le contexte est un peu un peu un peu difficile mm-hmm. euh, tu es à plus de pour cent de donc tu, de c'est au-dessus des critères de convergence pour endettement bi gis nga bor yi ñu mujj jël pour couvrir notre déficit ouais. tu es à un déficit qui est à cinq pour cent c'est-à-dire qui est au-dessus des trois pour cent des critères de convergence même si des gens comme moi

on ne peut pas gager des emprunts sur nos recettes de gaz et de pétrole pour le fonds de stabilisation en cas de fluctuation des prix ainsi et 5 pour cent pour le fonds intergénérationnel donc le cadrage est est, est là euh, mais on est une économie encore fébrile parce que à chaque fois que dafa am choc économique suñu croissance dafay impacter à chaque fois a une bonne campagne agricole j'ai vu qu'ils ont mis cent cent trente milliards ça peut avoir des résultats sur une croissance euh, dafay impacter suñu activité économique le plus important aujourd'hui le défi à relever c'est de protéger notre économie mu nekk une économie moins exsangue euh, plus autonome plus souverain ba nga xamante à chaque fois qu'il y a un choc du impacter Sénégal parce que Sénégal la difficulté comme ni mu ko waxee c'est de la population on a des taux de pauvreté dernière c'était mm-hmm. de population précaire quelqu'un qui est considéré comme précaire c'est quelqu'un maanaam da ngay ñëw nekk benn góor góorgóorlu yaa ngi liggéey commerçant nga yaa ngi dund sa njaboot yaa ngi ciy génn mais nga am benn malade sa jor feral wala sa waaju feral dès que tu un choc mu dugal la dans une dette hmm. avec le prix de la prestation qu'on a dans nos hôpitaux wala wala beneen choc boo mu am automatiquement mu dugal la dans la crise hmm. et ça c'est pas le fait de réalisation c'est le fait de réforme quand on doit réformer on doit discuter on doit être on doit pour créer un mouvement collectif moo tax c'est très important la communication fi ñu toll moo tax c'est très important aussi que les ministres assument la plénitude de leur ministère il faut arrêter d'envoyer le le le premier ministre au casse-pipe de l'obliger à prendre... est que c'est pas le premier ministre du moom en fait non il faut non moi j'ai pas besoin du premier ministre pour expliquer aux aux aux gens aujourd'hui j'ai envie d'avoir un ministre du du chargé les institutions mm -hmm. de la polémique que nous avons sur sur euh, sur euh, l'assemblée fii la premier ministre bëgg yóbbu assemblée bi premier ministre nee na moom dafay dugal loi pour les lanceurs de lettres moo tax assemblée bii di ñëw dafa am insulin sénégalais bi citoyen sax mën na dugal une demande de commission d'enquête mu encadre la notion de lanceur de lettres premier ministre nee na assemblée bii di ñëw comme nee nañ budget assemblée transparent wul le poste de questeur sera réservé à l'opposition mhm. dina mën tax au-delà de la polémique yow nga mën expliquer sénégalais yi fan la fan la fal la fan la fan la président jëm tey s'il une polémique sur les recettes tey le ministre des finances mën na génn expliquer comme ni mu ko defee keroog sur les subventions ne c'est un cancer euh, subventions yi ñëpp a koy jëriñoo ku am ak ku amul yéen a bokk li nga jëndee carburant ku am ak li nga amul yéen a bokk li ngeen fay alors que buñ ne subvention dañuy fekk dañu fa jàppale. ne loolu ngay xaar ci ministre yëpp. ñu gën a indépendant ñu gën a indépendant du PM. expliquer les réformes nee nañ ils ont un projet. Mm-hmm. nee nañ ils ont un programme. le premier ministre n'a pas encore fait les DPG mais c'est à eux compenser c'est à eux monter au front c'est à eux d'expliquer ce qu'ils veulent faire c'est à eux que de monter au au et ñoom ñoo ci war a góorgóorlu mu riir a riir ñu xam la lañ bëgg.